jërë ngeen jëf euh, mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak euh, ñun xam ngeen ne samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ñu dellu si ak euh, seen émission pencum réew mi ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw Diallo moo nekk ci wàllu machine bi mbokk yi tey ñu invité Isma Diagne di responsable politique APR dëkk ca Rufisque moom mooy secrétaire euh, administratif bu euh, convergence des cadres républicains euh, Isma réew mi FM ma ngi lay nuyu. waaw salaamaaleykum sëñ Abdou Khadre maa ngi lay ni fay di nuyu say auditeurs ak auditrice di rafetlu vraiment ci invitation émission bi di ñaan yàlla lépp lu ñu fi wax rek muy njëriñu askan wi. d'accord Isma Diagne yow nga bokk ci cadre Euh, parti euh, APR nga fare fi nga xam ne mooy Rufisque waxtaan wi dañ ko bëgg a euh, ak li nga xam ne tey moom mooy redécoupage administratif bi nga xam ne sumb nañ ko ci région de Dakar fi ne nii commencé nañ ko ndax nee nañu sax dañuy def fi nga xam ne mooy Kër ma Massar département Rufisque ci département bu Rufisque ci copage bi ci la bokk ñu gis ne coow li commencé na see juddu yow lan moo ci sa xalaat en tant dëkk ci gox boobu. waaw comme euh, ni nga ko junjee je pense que le mot redécoupage sax c'est c'est un mot de trop parce que il n'y a pas eu de redécoupage mais plutôt euh, comme l'a si bien dit hier le ministre c'est une correction d'un découpage bu ñu initié woon en 2011 découpage boobu mu ngi concerné woon plus particulièrement la communauté rurale de Sangalkam communauté rurale bu Sangalkam boo xoolee dans l'histoire du Sénégal et du département de Rufisque la communauté rural de Sangalkam bi ñu ko créé c'est pratiquement beaucoup de village ñoo ko seqoon bon bi ñu en 2002 si la ñu fal le ministre Omar Gueye mu nekkoon euh, autant maire de Sangalkam ñu ñëwaat en 2008 le président Ablaye Wade bi ñu ko gagné en deux 2007 encore ci élection yi euh, en 2009 du moins ci élection yi bi mu ñëwee 2011 mu def benn découpage administratif découpage boobu nag c'était un découpage boo xamante ni vraiment c'est un découpage politique. parce que mais découpage bii tamit dañu jàpp ne c'est politique. non non malheureusement même jàpp nañ c'est règlement de compte la aussi. non non man d'après li ma xam ci zone boobu. parce que man foofu laa fa laa juddoo fa laa yaroo fa laa màggee te samay euh, contact yu bëri ci zone boobu la ñu nekk euh, découpage lii nii du découpage mais correction la parce que boo xoolee li jotoon na am moo nekkoon un découpage dañu ñëw fekk un commune une commune de cent trente cinq kilomètres carrés ñu découper ko pratiquement en sept zones jël Sangalkam bi nga xamante ni moo nekkoon la communauté rurale superficie am doon un kilomètre carré. waaw mais est-ce que euh, euh, Isma Diagne découpage boobu ngay wax tey 2011 ñu defoon ko Sangalkam Omar Gueye nekkoon maire bu Sangalkam mbir mi naqari woon ko jàppante amoon fa ba am sax ko fa faatu woon est-ce que du naqar boobu moo topp Omar Gueye tey. ba mu nekk sax ministre bi ñu dénk wàllu woowu mu bëgg a fayu ci lu jëm ci wàllum politique am na ñoo xam ne noonu la ñu euh, noonu la ñu gisee. waaw politique nag ku nekk ak ni ngay gisee. Mhm. mais les réalité moom ay fait la. xam nga en 2011 la population de Sangalkam ak zone environnante yooyu yëpp dañu génnoon di manifester jours et nuits contre ce découpage la parce que c'était d'abord pour affaiblir un homme boo xamante ne nii. waa Sangalkam ñoom moom la ñuy wóolu chaque jour électoral moom la ñuy confier leur destin le destin de leur communauté buñ ko bëggee affaiblir donc il faut il va falloir que le président d'antan imposer ay ay directives à savoir le découpage mais tey jii lii am nii boo xoolee c'est pas du du du règlement de compte non non Omar Gueye bi muy bi découp bi li président li bi mu koy sumb par le canal de l'ANAT, qui est le maître d'œuvre de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, pour que, dans l'acte 3 de la décentralisation, le président de Fawahoni, moi, je veux des communes viables, hum? et compétitives. Commune, commune viable. Une commune viable, moi, commune bon, xamanteni, manam, dina mëna dundu am am am am ay am ay possibilité boppam am ay dayooy boppam bañ a bañ dépendre de trop de trop si si lu bari wala ci yeneen commune gis nga Kër Ndiaye Lo Kunun Ngalab Kër Baba Gissé euh, Kër Daouda Sarr hmm? yooyu yëpp ci communauté rurale bu Sangalkam la bokkoon. léegi fan lañu bokkoon. ñu jël leen en 2011 ci découpage boobu Ablaye Wade def jëlee leen communauté rural bu sàngalkam yóbbu leen Bambilor te léegi pour ngay dem Bambilor faw nga romb Sangalkam boo jógee Kunun Ngalab wala nga jógee Kër Baba euh, Gissé. wala nga jugu jugee kër Daouda Sarr wala kër Ndiaye Lo wala Kounoune faaw nga romb Sangalkam pour dem. ba ah, commune Bambilor waaw mais loolu moom. Euh, loolu moom dama lay wax benn affaire euh, Isma Diagne euh, nañu waxtaan. boo jëmee Bambilor. da ngay romb Sangalkam. loolu ci Sénégal mën nañoo wax ne du justification boo xamante ne ñun ñëpp mën nañ cee d'accord ndax tey mën naa la jox exemple loolu du commune boobu kese tey boo jugee woon Colobane Colobane bëgg a dem Gueule Tapée te Colobane ak Gueule Tapée bokk benn commune. te pourtant boo jógee Colobane boo bëggee jëm Gueule-Tapée da ngay kon lan moo tax mënuñu woon a jël Gueule-Tapée boole ko ci Médina ku mooy exemple ne moom nga jox kon loolu nekk na mbir moo xamante ni du ñu wax guleet loolu est-ce que foofu ngeen bëgg a sukkandiku kese na da ngeen di jël te te beneen bi yéen Mbambilor euh, xam nga yow yaa ngi wax sànq ne 2011 loolu ñu doon def mbirum politique la woon ngir bëgg rey ab adversaire politique tey Mbambilor ñoom li ñu wax nee nañ Omar Gueye dafa ñëw Mbambilor gox ya nga xam ne ñëw fa ëpp suuf ëpp fa ay recette ah ëpp fa population Omar Gueye ñëw ngar daajoo ko léegi loolu yow euh, lan moo ci sa xalaat. mais Abdou euh, Khadar xam nga moom laay lay wax sànq gis nga waxtaan duñ koy bëggee mu tegu ci yoon dañuy démarrer ca ca dañuy démarrer ca commencement ba man li ma la wax dama ne la Sangalkam a toujours été la seule communauté rural bu nekk dans ces périphéries là n'est-ce pas bi ñu ñëwee en 2011 Abdoulaye Wade moo njëkk moo def découpage boobu jël les terres de Sangalkam rattaché ko à une autre commune muy la commune de Bambilor c'est ça qui est une injustice man je me rappelle en 2011 après le décès de Malick Ba. mais loolu Abdoulaye Wade doon def doon foofu kese itam nag. non moom laa lay wax attends rek je t'explique parce que da nga laaj ci zone boo xamante ne man moom laa xam n'est-ce pas. ci la ci la mën a prononcé wu mais ce qui est sûr et certain mooy que le président est en train de corriger sur ces incohérences territoriales dans tout le Sénégal va dans les la direction de l'ANAT tu verras bien que ni ces corrections sont en train d'être effectuées. Mais maintenant mais askan bi ànduñu sax. mais attends bu ñu ñëwee en 2011 askan bi ñoo bañ loolu génn ci la ñuy reyee Malick Ba je me rappelle man mii di wax ak yow 2009 la Euh, bokk APR ba léegi ci ñi njëkk wax waxu APR ci département de Rufisque man ci laa bokk ba ñuy ba président di ñëw di jàlle si Malick Ba famille malik Ba man ci délégation bi ko indi ba ñëw toog ci laa bokk kon li may fa wax dama ko xam dama ko fekke président moom wax mu ne lii ñu dee malik Ba lii mu dee nii di ab xale waroon mën a jariñ askanam waroon mën a jariñ ay bokkam tey dee na ndax lan ndax lu dul dëgg lu ñu nar a teg fa mu dëkk. yàlla dogal délégation bi àndoon ak président man ci laa bokkoon bi ñëwee ba yaa ba ñu toog président jël parole waxtaan ak askan wu Sangalkam kilifa diine yaa ngi fa woon toog xale yaa ngi fa woon toog ndax Malick Ba c'était un jeune jigéen ñaa ngi fa toog notable yaa ngi fa toog chef religieux yi ñu ngi fa toog président mu euh, moment boobu c'était le candidat de la coalition. Macky 2012 nekkagul woon président de la république bi mu ñëwee di jaale si waxtaan ak askan wi ne leen kii yaakaar la nit ñi amoon ci moom ndax xale la mënoon jariñ askanam mënoon jariñ réewam muy xeex injustice ba yàlla jël bakkanam mais man en tant que tey jii koo xamante ne dama am yaqin ak yaakaar ni maa ngi dem pour jël ji réew mi bis bu ma ko si ko yàlla joxee injustice bi ñu teg Sangalkam dinaa ko corriger ça c' le dire du président de la République waaw c' est en 2011 j' étais présent maa ngi woon xam nga mon cher moo tax il est bon d' interroger l'histoire c' est important d' interroger l'histoire pour mieux comprendre les effets du président du du présent du moins le président Macky Sall c' est un homme de de parole c' est un homme d' engagement loolu la ko yàlla bindee ñun du ñu ànd ak nit ñi. moment boobu nga xamante ni àndoon ak Macky Sall ba dëkkee Tëngéej dëgg ñi afa amul doole dëgg dëgg dëgg dëgg ils étaient contre le président Macky Sall je personne parce que famille bu màggee dafay day ñaan yàlla mu gën a yaatu mais moment boobu scandale noo de Macky Sall sax presque était un péché à mais ñun ñoo doon dugg di wax ak nit ñi di leen montrer la valeur et la et les capacités que cet homme a pour changer. mais mais radicalement mais, euh, la situation de ce pays. en général et de Rufisque en particulier du ouais, département de Rufisque. en particulier waaw mais Rufisque googu ngay wax noonu yow yaa ngi wax ne Macky Sall euh, homme de parole la ak boo xamante ni dafa jëlee engagement mais bëri na ci réew mi loo xam ne waxoon na ko te bi ñu demee ba si mujjantal nga gis nañ ni jëfewu ko mais Rufisque googu ngay wax nga ne avant muy falu wax fa turu Macky Sall sax euh, problème la woon. mais bi mu demee yàlla sàkk nga dégg leen. ñuy jooy di ñaxtu seetaan gi ñu leen seetaan Isma Diagne xanaa ñemewoo taxaw fii di wax ne tey Rufisque gis nañu seen bopp pendant neuf yi nga xam ne mag Sall def na ko ci bopp réew mi lan la leen defal. merci beaucoup Abdou Khadre xam nga dañu nekkoon ci benn euh, domaine boo xamante ne. danañ ñëwaat fële. non faaw ñu yàggali ko sax balaa ñuy dugg fële parce que dafa dafa am loo xamante ni dañ ko war a leeral ci bopp askan wi tey jii bu président jëlee engagement boobu trente mai woon. la la la Malick Ba décédé woon n'est-ce ñu ngi ci mois de mai dix ans après le président comptait au moins tenir cet engagement la en le traduisant en acte parce que loolu lu nit ñi doon yàgg a jooy la li ñu leen defoon noonu bertel bi ñu berteloon la la la commune de Sangalkam bedd ñenn ñi yor ñenn ñi loolu moom nag woon yoon président nag loolu la woon ja bi mu jàllisee après nag bi Malick Ba décédé bi mu jàllisee loolu la ñëwoon doon. d'accord waaw euh, Isma. man. Euh, si problème mu Tëngéej non non bala ñoo ñëw si Tëngéej bala ñoo ñëw si Tëngéej il faut ñu wax ci lii nga wax nii tamit ndax tey mënuñu ko bàyyi mu jàllee noonu yéen 2011. da ngeen ne woon mbirum politique la am na ñu si àndutoon bien vrai que amoon na ay manifestation ba nit dee ci mais bii ko Macky Sall yi def tamit am na ñoo xam ne dañu jàpp ne règlement de compte politique la. ah euh, ndax ku si mel ni ministre Aliou Sow wax na loolu. Euh, ministre Aliou Sow jamonoy Ablaye wàdd jàpp naa ne nekkoon na ministre bi ñu dénkoon wàllum décentralisation mais askan bi dëkk Mbambilor li ngeen doon wax yéen 2011 moom la askan bi dëkk Mbambilor di wax moom la askan bi dëkk Jaxaay di wax ñi dëkk Malika moom la ñuy wax même ñi dëkk Yëmbal Sud loolu la ñuy wax di wax ne redécoupage bi wàllum politique la. te gis nga waa Mbambilor jóg nañu taxaw manifestation yi fa jot a am te nee loolee duñ ko fi nangu tey duñ ko fi nangu ëllëg kon ñoom tim mën nañoo jàpp ne lii yëfu politique la Isma. mais Mbambilor mon ña fa nekk ci njabootu Macky la ñu bokk. xam na. n'est-ce pas. Mhm. te borom kër xanaa du noot njabootam. Omar Gueye Omar Gueye non non non attends je vais pas parler de Omar Gueye là c'est le président je parle parce que instruction président kese. moom mën a wax ci waxu dëgg découpage n'est-ce pas le un ministre ab ministre des collectivités territoriales n'est pas habilité à porter un projet de la sorte sans l'instruction du président ah, de la mais conflit d'intérêt du si conflit d'intérêt nan la si mën a ñàkkee isma nag. non moom laa lay wax a pas de conflit d'intérêt xam nga lu tax. Mhm. parce que c'est des territoires qui appartenaient à la communauté de rurale de Sangalkam. commune euh, territoire yooyu dañ leen delloo seen commune ba ñu bokkoon. mais Omar Gueye non mais ministre Omar Gueye boo ko déggee muy wax dafay mel ni redécoupage bi moom euh, Sangalkam Bambilor kese la intéressé dafa mel ni moom commune am kese la la la intéressé. mais parce que c'est loolu lañ ko posé la question mais le ministre a été très clair dans ça man je vais aller plus loin même à Jaxaay. Jaxaay Jaxaay c'est une nouvelle création. c'est une commune qui a été créée par décret présidentiel en 2011 par Abdoulaye Wade n'est-ce bon si lañ si joxe ay parcelles ay boom démographique boobu am foofu mais dama lay wax lenn bi président ne dañuy def département Kër Massar mais la logique voudrait que Jaxaay soit collé à Kër Massar. ñoom nanguwuñ. mais attends xam nga ñan ñoo nangul ñi xamul l'histoire de cette zone gis nga mit Daara Cubb ah ak Ñàkkur Rab c'est deux territoires qui ont toujours appartenu à l'espace territorial du département de Rufisque loolu waa département de Rufisque dañ dul nangu ñu koy yóbbu dans un autre département mais Jaxaay c'est en 2011 sa biñ ko créé léegi c'est 10 ans mooy tax nit booy wax dara day fekk nga am ci loo ca xam. mais xam nga yow Isma li ma jaaxal mooy dafa bëgg dafa bëri ñoo xam ne ànduñu. ci redécoupage bi nga xam ne moo la Macky Sall yi def ci région de Dakar am nañu dëkk Rufisque ñoo xamante ni ci département de Rufisque bëri na ci ay maire yoo xam ne yëkkati nañu seen kàddu kon yow nan nga mën a ñëwee di rafetlu découpage bi ñu bëgg a def département de Rufisque man correction bi laay rafetlu parce que injustice lañ tegoon la communauté rurale de Sangalkam Sangalkam man injustice laay rafetlu gis nga mon cher Abdou Khadre qui connaît le président de la République son excellence monsieur Macky Sall c'est bien que ni c'est un correcteur boo xoolee ci ci histoire Sénégal non non pas fayontekat quand même bu doon fayantoo kon tey jii am na loo xamante ne man buñ buñ ko ko waxoon mun régler ko sur le champ n'est-ce pas mais c'est un correcteur d'injustice bi mu ñëwee lu mu njëkk a indi mooy équité territoriale équité sociale yooyu parce que dafa am yenn zone yoo xamante ni pratiquement ñu woon ci biir Sénégal mais bokkuñu ci woon. Oh, mais Isma xam nga président Macky Sall. Euh, def na 9 ans ci bopp réewum Sénégal. dafa am foo xam ne fa la ko waa département de Rufisque doon xaar am fu ko euh, ñeneen ak ñeneen doon xaar euh, li nga wax nii. Euh, corriger euh, loo xamante ni incorrection la woon loolu peut-être yow mën nga ko jàppee noonu bien vrai que bëri na ñoo xam ne dañu jàpp ne règlement de compte politique la mais est-ce que amutoon lu gën a jàmp ci département de Rufisque bi nga xam ne askan waa ngay jooy barki démb rek ñoo ngi naqarlu Sococim ba nga xamante ni mu nga fa bëgga a tabax sixième four askan wi bëgg a dee xet gu bon pollution assainissement bu baax amu fa euh, marché ba kenn xamul lu muy niru euh, ña fa dëkk troxtaange bëgg leen a sonal président Macky Sall dans 9 ans amul lu mu fa def yéen ngeen bëgg ñëw bëgg koo félicité ci loo xam ne ñeen ñi jàpp nañu règlement de compte politique la. waaw mais Abdou Khadre xam nga yow da nga dugg ci deux choses yoo xamante ne bokkul. lépp quand on parle quand on parle du département le plus grand investissement ah boo xoolee ah ci PSE bi c'est le pôle de Diamniadio nest tey Diamniadio c' est plus de 2000 milliards d' investissement. mais du pouvoir non c' est dans le département de Rufisque. waaw mais mais mais Isma non non Isma non Isma Isma. waaw waaw ok parce que man je suis un Rufisquois de souche. sama maam sax Tëngéej la juddoo. d' tey jii c' est dans cette ville où je suis né c' est là-bas où j'ai grandi foofu laa jàngee n' ce pas et cette ville m'a inculqué certaines valeurs et vertus. yoo xamante ni je suis imposé ça partout où j'ai été pour des raisons d'études ou professionnelles donc j'ai une redevabilité envers Rufisque d'abord Rufisque est au de tout à mes donc du ma du ma du ma salfaañee interu Tëngéej ça non jamais pour la vie mais je peux dire une chose aussi gis nga une cohérence hmm? logique moo koy définir Tëngéej ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi mais dafa am situation yu nga xamante ne tey jii bu fa amee mais lan moo ko fa indi. ban investissement ngay wax. lan moo ko fa indi tey jii par exemple les deux voies deux deux fois deux voies yi bu juuti ba ba ba ba ba bataa loolu doomu tënkee yàgg nañ ko jooy c'est président Macky Sall n'est-ce pas ñu ngi le chantier bi ñu ngi le ministre des infrastructures euh, Mansour Faye ñëw na fa ba ñu def lancement bi. n'est-ce pas des voies des voies les deux fois deux voies. yi ñu war a def de juuti ba ba bataa nest pas il y a d'autres projets yu nga xamante ne nii les maires les maires am na ay maires yu nga xamante ne nii vraiment def nañu effort ba apporte yenn projets yi muy projet d'assainissement man mii di wax ak yow le ministre Mansour Faye bi mu ñëwee Rufisque pour le projet d'assainissement de de de. de de de Rufisque. ci yenn extension yi waaw ah, mais foofu laa jëm c'est ça si. mais tey jii boo ñëwee cité millionnaire mosul am assenisement assainissement André Kenny musul am assainissement Gendel musul am assainissement tey jii ñu ngi ñu ngi c'est des c'est des quartiers qui ont qui sont en man mi dëkk Rufisque Nord il y a plus de 37 quartiers les 18 sont en train d'être assainis mais comme lu ñu naan on ne peut pas tout faire d'un seul coup ce n'est pas possible. Ah. mais des efforts sont en train d'être faits c'est-à-dire nañuy magnifier ces efforts qui sont en d'être faits ñun lu ñu defal Tëngéej doyul lu ñu defal Tëngéej doyul si ci ñuy bët ndax foofu moo ñu moo foofoo ñu foofoo ñu defar. d'accord fa lañ bokk fa la ñuy foofu la ñuy sagoo aussi. d'accord léegi euh, Isma Diagne yow responsable politique APR nga mhm. bokk ci cadre APR yi dëkk Rufisque sànq bi ma la waxee na la yow pendant neuf ans euh, président Macky Sall. Euh, mën nañoo wax ne amul lu am solo lu mu def ci département de Rufisque. Euh, waaw non selon moi. Ah, euh, ndax sànq yaa ngi ne da nga dëkk Rufisque mais ñun dem dañuy dem Rufisque. beneen bi ma la njëkkee wax da nga ne ma pôle urbain bu Diamniadio. pôle urbain bu Diamniadio yow mi politique yaa ko boole ci investissement bu Macky Sall def ci Rufisque. waaye askan wi nga Sénégalais lambda bi dëkk Rufisque xam na ne pôle urbain bu Diamniadio ñeneen a ko tax a jóg waaye du doomu Rufisque Rufisque gi ngay wax. su tawee ñu gis ndox ma ca mbedd ma assainissement eaux use bu am ba am Rufisque mara de taali Rufisque boo fa jaaree bu tawee gis nga na muy mel marché Rufisque ba gis nga na muy mel tali nekk ci biir Rufisque gis nga na muy mel insécurité ba gis nga nam mel lu jëm ci wàllum électrification ba gis nañ euh, na mu mel lan lañ créé foofu Rufisque loo xam ne sax ndaw ñi danañ fa mën a dem wut fa liggéey Isma loolu laa bëgg nga wax ma ko mais boo ma waxee 9 ans yëpp na ma ay 2 voies 2 voies yoo xam ne projet bi lii la vraiment. non non non je ne me limite pas à ça man coupé te yeggale wu ma. Ah, yeggale voilà la fa pré moom laa lay wax dama ne gis nga ab dëkk. Ah. d' abord danaa leer déglu. mais man tëngeej mooy nee naa la. tëngeej mooy sama mooy tëngeej nit mënu ma kaa gën a bëgg. Mhm. n' pas. Mhm. man mosuma dem feneen ci àdduna. fu dul tëngeej bu ma génnee xanaa dem jàngi ñëwaat mais lépp tëngéej laa ko defee nee naa sama maam sax tëngéej la dëkk nit gënumaa bëgg tëngéej mais dama ne tey jii ñuy wax ak yow Sénégal fi mu toll nii lépp booloo moo koy defar bu ñu bokkee doon bokk ndey bokk bàyyi lu ñu bëgg mën nañu koo am nest hmm. te xam nga tey jii boo xoolee ci commune euh, ci ci ci régime président Macky Sall. dafa gën a dooleel les terri collectivités territoriales n'est-ce pas il y a des yoo xamante ni loolu c'est du domaine de la collectivité territoriale tey jii par exemple les collectivités Tëngéej Sococim boobu ngay wax tey am na commune yoo xamante ne nii ñuy biir Tëngéej sori nañ Sococim mais à partir de la celle cest à la contribution économique locale mais dañuy bénéficier wu ci batante Sococim n'est-ce pas te loolu c'est le président de la euh, c'est le président Macky Sall qui est à l'origine de cela tey le PACASEN est là c'est un programme tey bu ñuy def clôture yenn yenn yenn yenn euh, les écoles certaines écoles à Rufisque di leen embelliraat c'est grâce au PACASEN donc loolu c'est de efforts que le président fait mais dafa am loo xamante ni waa doomu Tëngéej ñoo ko mën a defaral seen bopp. si kaw président jàppale leen. mais naturellement. parce mais mais xam nga euh, Isma Diagne. Tëngéej Rufisque. Euh, dafa nekk département boo xam ne mënoo tudd Sénégal te tuddoo ko. ce muy région muy ci région bi nag. mooy département bi nga xam ne mën na wax mooy département bi fi gën a deltu ginnaaw. loolu moom nga dëggal ko ak nga ñàkkoo dëggal man loolu laa jàpp ci département euh, euh, Rufisque waaw man loolu moom laa jàpp man jàpp naa ne Rufisque ak ni mu mel ak euh, ni mu xawee génn région bi noonu waroon na mën a am ay ñu def fa ay ay ay bërëb yoo xam ne ay entreprise yoo xam ne ak leneen ak leneen doomi Rufisque doomi Tëngéej ñoom danañ ci mën a gis seen bopp mais loolu gisuñu ko fa tey Euh, ñoo ngi wax réfection wala defar ay marché mais defar marché boo xamante ni Tëngéej euh, Carrefour la mën nañu ko waxee noonu euh, garage boo xamante ni tey garage boo xamante ni dafay ci dafay am ay ay ay recette Tëngéej am na organisation boo xam ne état bi bu si dugaloon loxoom tuuti Tëngéej man naa naatal boppam. mais gis nañu ne li ñu gis ñun ci suñu gis ñun suñ point de vie mooy mooy département bi nga xamante ne moom moo moom lañ gën a néewal doole man loolu laa gis. waa xam nga néewal doole bi c'est un mot qui est un peu trop fort sincèrement mais dama lay wax lenn. Tëngéej mu jëkk doon sax Dakar ville. Hmm? Tëngéej. gën pratiquement pratiquement boo xoolee c'est la troisième commune. ah du Sénégal avant les indépendances hmm? boo xoolee y le port de Rufisque hmm? Hmm? le grand port de Rufisque mu ngi nekk côté Sénéfa foofu la woon la ñu defoon le grand port mais xam nga deltu ginnaaw boobu ngay wax euh, souvent ñenn ñi mën nañ ko qualifier sax que ni c'est un manque d'accompagnement de l'État man je je vais aller beaucoup plus loin sa di dire c'est une désorganisation interne parce que gis nga ab dëkk du génn taxaw ci mbedd wala wax lii mooy defar ab dëkk gis ab dëkk ay réflexion ngay porter d'abord teg ko sur la table nit ñi diagnostiqué ko ku nekk indi ci sa apport ah personnel pour que ñu mën a avancer mais bu fekkee kenn ku nekk da nga xalaat ni yow kese ah ak sa mbaboor yaa mën a defar dëkk mais da ngay nax sa bopp. c'est ça qui se passe actuellement à Rufisque c'est l'occasion de citer un projet boo xamante ni man yàlla xam ne ba may xam projet boobu sax je ne connaissais même pas que ni Rufisque lay nekk mooy le carré d'or c'est un projet buy defar mooy marché wa marché tëngéej bi ñu waroon a defaraat c'est un projet qui est très fiable c'est un très bon projet mais malheureusement qui n'est pas accepté par certaines voies à Rufisque c'est ce qui fait traîner encore ce projet la te tey jii su fekkoon d'autres communes la d'autres localités la c'est sûr et certain qu'ils vont accueillir ça à deux bras c'est ça aussi souvent qui pose problème au quoi moo tax ma ne la ñun ñoo mën a defaral suñu bopp suñu suñu gox xam nga maa ngi lay wax ma ne la tey jii les fonds de dotation yi président di allouer aux collectivités territoriales les fonds d'équipement tey ko xam président Macky Sall xam ni li muy liggéey lépp lépp lépp lépp ci base bi la jëm mooy les territoires locaux locaux dimanche ci la jëm d'abord mais yaa xayti li ñu war a def ñun waa Tëngéej ñi nga xamante ni ñun ñiy dëkk Tëngéej mooy doon ab benn say ah xam lii mooy intérêt Tëngéej ñu taxaw ci xar ci suñu tànk tubéy loolu du waa Ndakaaroo ñu koy defal du waa Thiès ñu koy defal. d'accord xam nga tey bu ñuy wax dakaar dañaan dakaar Dakar sa banlieue et Rufisque Rufisque n'a jamais été une banlieue pour Dakar hein. non non de non Rufisque n'a jamais été une banlieue de Dakar bu ñu wax dañ naan Dakar sa banlieue et Rufisque. waaw mën nañoo wax Rufisque mais sorewutu ko banlieue. non non Rufisque jamais été une banlieue. Rufisque bañ ko créé ba léegi commune la mës a nekk on a commencé à voter à Rufisque en donc c'est pas aujourd'hui que Rufisque va devenir une banlieue de Dakar quand même mënuloo créer une ville bien avant Dakar Dakar retourné waat bëgg a nekk mun cette ville là bëgg a retourné waat nekk une banlieue de de la ville qui a été créée bien après que ça mënul nekk ce n'est pas possible. d'accord euh, xam nga Isma. boo xoolee euh, fu baree bare insécurité fu mu am. mooy fi nga xam ne pauvreté dafay am. te Rufisque mënoo wax ne pauvreté amul Rufisque li nga xamante ni man loolu laa loolu laa jàpp. man loolu laa jàpp loolu laa gis te dama jàppoon ne tey solution war na si am ndax solution euh, Rufisque su noonu am na ay euh, aller retour tali yu baax biir Rufisque am électrification bu normal biir Rufisque def fa garage bu comme garage bu Rufisque marché boo xamante ni bu organisé lay doon bu ñu assainissé def ay place ay centre yoo xamante ni tey jigéen ñi mën nañu faa def seeni formation tey def ay centre de conférence def fa foo xam ne tey xale yi mën nañu faa tàggatoo mën nañu faa fooye mën nañu faa defee seeni entraînement loolu lépp organisation boobu su amoon Rufisque mën na suqali ko sànq yaa ngi wax ne organisation interne la mais organisation interne su mun mënta nekk président bi moo mën a ñëw defar Rufisque yow yow waa APR nga bokk non yow Isma yow waa APR nga bokk mais man li ma gis mooy Tëngéej département boobu. taxawaay bi nga xam ne moom la fa état waroon na taxaw. comme taxawu ko fa. man ti loolu laaj gis te du ko kese bëri na fi foo xam ne ci biir Sénégal dafa mel li ñuy wax équité sociale amut yenn gox rek lañu bëgg ñëw jox leen lépp ñu bëgg ko ngar daa joo loolu mooy sama gisin. yow loolu sa gisin la. mais du loolu mooy li am boo xoolee Sénégal na may doxe ni muy doxee fi mu ne nii gisee le président Macky Sall bi mu ñëwee ba léegi. injustice lay corriger yu bari injustice sociale injustice territoriale n'est-ce pas euh, semaine prochaine ni sera à pour inaugurer campagne déguisée. non non c'est euh, donc moom laay wax xam nga xam nga tamit xam nga tamit tey jii. mën nga qualifier loolu nu mu neex lu la neex mais aller inaugurer. waaw yaa ma gën a xam ne benn benn hôpital. Ah. boo xamante ni musul am ci bërëb boobu ah niveau boobu. ah loolu boo ko jàppee campagne déguisée loolu yow la xam nga tey jii. moom la li may wax la non non dama dul nangu. Ah, tey jii ngay ngay ngay ngay ngay ngay utiliser yenn expression yi ma lay bàyyi noonu nga jàll. c'est un droit le plus absolu ah mais je vais pas te laisser passer xam nga lu tax. parce que c'est son rôle ah d'équiper d'infrastructures dans les régions c'est son rôle loolu la ñuy demander te loolu la nekk di def tey jii loolu xooloo xooloo tey jii. da ngay jugee côté Ndaam jëm ci kaw xoola tali yooyu toutes ces infrastructures que le président a eu à xam nga dañuy wax ñun dañuy wax ci département bu Tëngéej rek bu mu la expliquer tu vas comprendre beaucoup de choses Tëngéej dama ne la la véritable problématique de Rufisque c'est que chaque Rufisquois veut être au devant de la scène sans pour autant que yeneen Rufisquois ay converger vers l'intérêt général c'est ça la véritable problématique de Rufisque. d'accord jërëjëf. voilà waaw jërëjëf euh, Isma Diagne jombul ne peut-être dana ci ñëwaat ci waxtaan wi ndax xam ne yeneen ponk ñoro waxtaani waat sànq nag nee naa la président Macky Sall yow yaa ngi wax tournée bi euh, yaa ngi wax sànq équité sociale équité territoriale man gisuma équité territoriale giku gisuma équité sociale ndaxte tey alalu réew mi yépp dafa mel ni dafa am yenn région kese ñoo ko jël ngar daa ko tey par exemple yi tax ma ne la tournée euh, économique tournée boobu président Macky Sall yi bëgg a def di dem di inaugurer hôpital mais moom day bàyyi bañ jàppee élection mu ne day def tournée te tey pourtant mënoon naa jóge foofu. yaa xool loolu man maa gis loolu. dama ne naa jóge foofu. dama ne hôpital duñ ko inauguré te parewul. dégg nga ma. hôpital duñ ko inauguré te parewul. ndax service yi fa nekk. ñu ngi hôpital baa ngay soog a pare. day dem inauguré léegi loo bëgg mu bàyyi ba. mais xaaral ma leen benn xeet Touba moom lañ commencé ak hôpital boobu ngay wax. mois de mai. la ñu waxoon moom lañ koy inauguré. mais boobu kenn jàpputoon. datu élection yi. président Macky Sall lan moo tax mënutoon a jaaree noonu moog Abdoulaye Diouf Sarr inauguré ko. mais mais day bàyyi ba élection jub si mu bëgg a def campagne déguisée di wër naan damay inauguré ak damay nangam. Abdou xaar yow yaa jàppale loolu campagne déguisée encore une fois xam nga comme on dit les faits sont sacrés mais le commentaire reste libre le président est au-dessus de cela ay nekk di xool ay campagne déguisée non ce qu'il a fait dans ce pays-là lu ñu ne fàng la du lu ñuy jeex n'est-ce pas tey boo duggee tey jii boo toogee Sénégal xalaataat dix ans gis li liñ fi def ak li lim fi defar ci lu baax ah ak ni mu commencé di formaté waat jikko nga xam ni y un pas de géant qui a été fait dans ce pays-là et par un grand monsieur c'est ça la réalité des faits maintenant nag qui veut voir du mal même en ayant les yeux ferme il que du mal loolu àdduna li nit ku nekk libre na ci loolu mais dama ne li ne fàng kenn du ko jeex le président Macky Sall depuis bi mu nekkee à de ce pays sa volonté manifeste de redresser ce pays moom lañ ko xamee te moom lañ ko gis mu ciy dox. il n'a jamais été à contre-courant. face aux intérêts de ce pays-là. d'accord léegi dana ñëw ci euh, élections locales yi Isma Diagne yéen yéen cadre APR yi euh, fan yi ñu baree baree bari nag am nañ mbetteel si yéen. yéen cadre APR yi ndax yéen professeur euh, professeur Bathily professeur Bathily di ab cadre boo xam ne ñenn ñi sax jàppe nañ ko patrimoine national Abdoulaye Bathily wax xalaatam ci réew mi wax ne Sénégal fi mu jëm si kaaw Sénégal jëm ngeen génn communiqué yéen cadre APR yi yàq ko musiba xas ko vilipande ko loolu est-ce que loolu moo nekkoon seen rôle est-ce que seen rôle nekkutoon ngeen déglu li Abdoulaye li wax ngeen jéem see indi ay solution ka ngeen koy traîner euh, di ko wax leen lu nekk ci communiqué. waaw Abdou Khadre question boobu dama ci sawar a tontu j'ai beaucoup de respect pour le professeur Abdoulaye li pour ce qu'il représente pour ce pays et pour ce qu'il a été aux du président de la République son excellence monsieur Macky Sall mais xam nga àdduna euh, bu nit waxee ba pare. ah bu ko ay nit tontoo ah bu ca gisee boppam rek na xoolaat waxinam le professeur Ablaye Bathily a été un compagnon du président de la République n'est-ce pas bi muy bëgg président commission union africaine amul la ci président Macky Sall deful le président a envoyé des émissaires dans certains pays africains pour que ñu porté la candidature du professeur Abdoulaye Bathily mais jaam ak bëgg-bëgg yàlla ak dogalam aujourd'hui bi mu man bi ma déggee mu wax lii ak fii réew mi toll ak lii avancé yi am ci réew mi président di ko def moom mu gis ko doot intellectuels africain ah di ko magnifier moom mu taxaw mu ne le pays le pays va vers un chaos je suis désolé mais loolu c'est une attaque politique une attaque politique nag ça lii lii mën a ñëw rek mooy une réponse politique nous aussi cadres ah dañuy dañu am suñu xalaat am ci suñu analyse toog waxtaan gis ni lii mu def nii réponse bi lii la et aucune structure du parti n'est mieux habilitée que la pour en parler moo tax gars yi la CCR je félicite encore le coordonnateur de la CCR son euh, monsieur Abdoulaye Diouf ministre de la Santé, qui est en train d'abattre un travail extraordinaire à la tête de, ce, de cette structure du parti. kon li ngeen kon li ngeen bind amul si regretté. mais regretté quand même on lui a fait comprendre ce qu'il en est réellement c'est-à-dire xam la dul accepter qu'on fasse que tu sois un professeur émérite ou pas xam nga qu'est-ce qu'on ne va pas accepter que l'on donne une désinformation aux Sénégalais ça on ne va pas l'accepter c'est un professeur man mii di wax ak yow je suis professeur damay jàngale. nest pas donc il faut quand même que l'on respecte il faut ñu respectante ñun ñëpp kenn ku ci nekk nga jox cër sa moroom il a fait une attaque politique et il a subi une réponse politique c'est tout juste ça jërëjëf euh, Isma Diagne yow nga bokk ci cadre APR léegi ñu wax ci élection locale yi euh, élection locale yi fan yee sax invité naa ku bokk ci euh, Saliou Sarr samedi passé moo jiite moo nekkal opposition bi ci dialogue politique bi euh, mais ñoom wax nañu ne fichier électoral bi euh, bëgguñu ñoom ñu dem ci élection locale ndax bëri na ay incohérence ay njublang yoo xam ne am na ci biir fichier bi yow lan moo ci saxlaat ci euh, fichier électoral bi nga xam ne audité nañ ko ba def ay conclusion ñi ko auditi nag ay experts internationaux lañ ñoom nee nañu lu fichier bu fiable la mais am na ay conclusions yoo xamante ni tey euh, xel xeltee na si ISMA. Abdou Khader yow yaa ko wax ah, c'est un audit qui a été mené par des experts internationaux hmm? ñoom ñu wax ni ce fichier est fiable. ba pare def ko donc <laughs> donc. ñoom def non mon cher xam nga gis nga cette opposition là malheureusement malheureusement. mais li nga hmm? conclusion yi. non moom laa lay wax je vais en venir gis nga cette opposition là. sincèrement xam nga liñ naan mbër boo xamee kalaman saa boo ko jubee rek faa nga wut ab lay c'est ça. y a explication oui xam nga lu tax parce que dañu xam ni ñoom ñi fi nekk nii ñuy wax di ibbi seen làmmiñ di wax dama ne li Macky sàll ak équipe am di liggéey ci dëkk bi ñoom dañu ko ne dañ ko gis mu ne fang ñu xam ne askan wi du ñu ànd ak ku liggéeyul nañ waxante dëgg fii ñu fi yor nag seen làmmeñ gis nga wax bilaay bu jëfu taxawee rek wax day daal di fay te ñoom looloo leen dal fichier bi fichier gënu ko fiable yaa amul benn benn benn incohérence ci fichier bi tout est nickel xam nga li ci des mooy sëgg bëre parce que lii élection locale la tey jii kenn ku ci seen nekk gox ba nga dëkk tey sa représentativité c'est l'occasion de montrer ta représentativité dans ta propre localité loolu mooy wax ji amul ay affaire de lii wala lële nañu dem ñu dem ci le terrain ñu bëre ji xool ku yàlla di jox ndam. waaw mais est-ce que ragal yi wala ñi nga xam ne jàpp nañu ñoom ñooy. ñoo amul doole mooy yéen ñi nga xam ne yéen a lànkoon bañ a élection yi xool date ba leen arrangé ba leen neex. ngeen bëgg koo jàpp jàpp élection yi pare war def seen campagne. Abdou Khader on ne peut pas vouloir une chose et contraire. mais c'est l'opposition à qui a demandé à ce que l'on fasse un audit opposition bi moo ko demande mais conclusion fichier bi doo ci wax. mais conclusion fichier bi qu'est-ce que mais quelle c'est quoi la conclusion les experts ont dit la fiabilité d'abord xam nga gis nga fichier électoral hmm? xam nga lan mooy repère Hum? Sa constance de repère ce n'est que sa fiabilité fichier bi fiabilité am kenn naatable wu ko nest pas mais xam nga li ma la wax rek Abdou Khadre mbër boo xamee ki la saa boo ko jubee rek wutab lay. d'accord mais xam nga Isma Diagne tamit yéen euh, dafa mel tamit euh, li ñu faral di wax ne euh, maanaam ma Macky sàll ak yéen waa benn bokk yaakaar yéen neexule na bokkal aw waxtaan ndax seenu waxtaan ak seenu dialogue la leen neex moom mooy am lan lan opposition la leen naqari yéen seen yoon nekku si ndax fii bi ngeen ñëwee ne tey élection locale yi dañ koy dàq mais dialogue politique ba dañ ko faa waxtaanee ma d'accord ci mais bi ngeen tey ba di ko jàppaat opposition bi mais woowoo leen leen na leen ñëw leen euh, ñu ñu xool ban leen ko yàpp di ngeen a jékki-jékki rek génn 22 janvier 2022. mais loolu est-ce que koo respecté woo ko si dialogue politique est-ce que di nga doxee noonu yéen opposition bi seen nawle lañ. mais Abdou xaar boo xoolee Sénégal ni muy doxee. xam ne ki ko jiite c'est un de dialogue il a toujours appelé les sénégale au dialogue président Macky Sall ku ko xam ni xam ni li mu gëm mooy balaa jëf dara day waxtaan ak doomu aadama yi ba ñu mu ko séqal ba pare ay naataangoom mais tey jii situation bii am nii xam nga yaa ngi wax ne dafa génn ne 22 janvier joxe date mais c'est parce que l'opposition xam nga lan lañ buggul woon dem élection. ci 2022. dama ne. gis nga deux mille vingt 2021 décembre 2021 ak janvier 2002 gis nga le président de la république tey ce qu'il a hmm, comme information ah yi jëm ci dëkk bi ak ce qu'il a comme programme. tey bu dee bu ne leen def nañ ko def janvier ñoom ñu ne nañ ko def décembre vraiment bu dee ni ñoom sax jox nañ cër askan wi bu président waxee amatuñ luñ ci war a wax. non xam nga tey Isma Diagne. malheureusement cette opposition n'a pas n'a pas d'argument fiable non Isma Diagne yow tamit il faut na nga jox war ma nag wax dëgg yàlla nag opposition bi yéen. Isma xam nga la ñu war a xam Isma. nañ d'accord ne. Euh, yaa ngi wax président de la république mais président de l'APR. est-ce que du moom moo en de de de mooy jël euh, ay ay ay programme am programme ndax xam nga ne yow yaa ngi ne. quand je de programme. de la république. d'accord mais yow. tey jii dama ne 21. 22 janvier 22 janvier la dem élection ñoom ñu ne woon décembre 2021. Mhm. ah mais décalage yu un mois boobu mais lan moo ci lan ban problème la war a indi. mais dama ne la tey jii ñoom ñooñu ŋànk ñu bopp réew mi. d'accord mais fañ ko doon waxtaanee jël politique ba. fañ ko ah. doon waxtaanee. experts yi nga xamante ni nekk nañ fa yàgg nekk ci fichier électoral yàgg ubbi ay ñuy bindu ak di vérifier fichier bi ñoom. jàpp nañ ne techniquement matériellement manoon nañ koo amal ci décembre deux mille deux mille vingt et les experts n'ont pas dit cela. que l'on ne fasse pas dire kan moo wax loolu. dialogue politique bi laa la wax dama la commission la commission laa la wax ah politique ah waxul loolu non non c'est-à-dire il y a des opposants qui sortent pour donner de une mauvaise information c'est ça la réalité. waaw non information lii ma la wax nii. dama ne la ñu bokk ci opposition bi. ñoo xamante ni ñoo ngoon sa dialogue politique ba lii ma la wax sa biir dialogue politique ba fa lañ ko waxee ndax mouvance présidentielle dañ ne munta nekk opposition bi da leen mën naa nekk indi leen ay argument mais yow 2021 bi ngay wax nii benn benn weer Isma Diagne bu ko xeeb ndax yow tey par exemple tey opposition bi ñoom dañoo wax ne Macky Sall président Macky Sall bu dee tey mën nañoo jox ay garantie que ne 22 janvier mois de janvier 2022 bu fa organiser local dina fi organiser même année bi élection législative jox leen ay garantie yu wér ñoom danañ ko si ndax tey lii nii même bu doon benn weer la tey président Macky Sall mën naa ñëw ne élection locale organiser nañ ko 2022 même 2022 bi bu ñu paree bëgg a deewaan waa naan fichier bi il faut ñu xoolaat lii il faut ñu ubbiwaat il faut ñu defaat nangam euh, ñi bëgg a binduwaat ak nangam ak nangam mais boobu mën nañoo taxaw sax ne 2022 mënuñu fa loolu est-ce que du prétexte loolu la opposition bi ragal te yéen joxu leen joxoo leen leen benn garantie ba pare ne leen par force di ngeen dem élection janvier 2022. mais attends <laughs> Abdou Khadre yow ci ci yow yow tu as des mots yoo xamante ni ka boo dee par force mais fii amul lu ñu fi forcer kenn. mais par <laughs> non mais attends lan lañ fi forcer ak kan lañ fi forcer dañu ne dama ne la boo xoolee nañ waxante dëgg gis nga ñombar loo ko bañ bañ bañ bañ war ko mën a nangul mën a daawam. ah le président Macky Sall dama dama lay wax Abdou xoolal ñaata yoon la appeler l'opposition ah autour de l'intérêt national du pays ah mais un homme comme ça de cette dimension ak fi nga Afrique teg tey sénégalais yi teg ko fa hmm? tey am na loo xamante ni moom bu ko ko doon digal sax xelam mënul nekk yegg ci loolu honnêtement dama ne opposition bi prétexte la ñuy wut. parce que xam nañ ni dañu leen gisul sur le terrain ñoom mais gars yi fii gis ñu nekk dans l'opposition mais c'est des opposants de circonstance. xanaa gisoo ma ne ñoo ngi waajal coalition bu dëgër la. mais nañu ñëw avec cette coalition là. da ma ne ñu ngi leen ma ne nañu ñëw man du sax wax ci ñoom. parce que l'opposition ah, non attends l'opposition dama ne man boog dans le département de Rufisque où j'habite je j'en suis sûr et certain que ah sous la coordination ah du coordonnateur de la coalition benn Bokk Yaakaar le ministre Omar Gueye toutes le communes je dis bien toutes les communes du département seront gagnées par notre coalition. mais votel yéen tegu leen ko fenn moom. benn bokk yaakaar bu dee askan wi génn nañu votel liste benn bokk yaakaar. waaw teguñu ko fenn. mais askan wi mooy dama ne la élection locale lañ jëm. xam nag di nga ko voté xanaa teg ko si réalisation. mais réalisation dafa dafa am. waaw d'accord dafa ne fàng sax euh, parce que gis nga naa la wax leen gis nga président Macky dafa doon nit ku nga xamante nii booy bokkee du bëgg a accès. waaw d' accord léegi c'est comme ça qu'il fonctionne avec tout le monde. d' accord yi. Euh, Isma Diagne yéen. da ngeen bëgg def ay bluff ndax yéen président mag Sall. xam nga la laa euh, doon ko Abdou nekk ci émission. nga man da ngeen di def ay bluff. mais non non non parce que xam nga non non non attends mais parce que ça ne tient pas. mais bluff pour lan. Ah, mais pour lan. tey jii dama gis nga boo nekkee kilifa. nekk ci réew wala nekk cib kër sax boo nekkee kilifa nekk ci kër tey jii boo dox boo toogee ci diggu kër gi ku romb da nga koy séen hmm? waxuma la gis mais ku romboon sax di ko séen ñun noonu lañ demee ak askan wi. d'accord naa léegi euh, Isma Diagne. man lu ma wax rek. Euh, yow bu la neexee nga waxee ko yow ni nga xam ne moom nga ko jàppee ne mooy mooy li am mm-hmm. euh, mais yéen yéen waa mouvance présidentielle mm-hmm. yéen yéen yow xam nga yéen yéen a ngi wax ne. benn weer kese 2021 ak 2022 bi euh, amul problème mais tey opposition bi dafa am loo xam ne moom lañu leen wax noir sur blanc ci dialogue politique bi na leen dañoo bëgg bañu ñu janvier 2022 pare nañ pour dem janvier 2022 bi ngeen wax bien vrai que Euh, weñ ngeen suñu loxo. ndax ñun 2000. non non dama lay wax le man opposition bi la wax laa lay wax. kenn loolu bu leen neexee ñu wax ko. ku su bu leen neexee loolu mën nañu ko wax ah, bu leen neexee sax ñu ne fàtt nañ seen i bët. voilà loolu bu leen neexee. mais léegi lan moo tax joxoo leen leen garantie 2022 que ne da ngeen organiser élection législative 2022. mais moom laa la wax sa waay dama ne la gis nga dëkk ki ko yor dafa am foo xamante ne bu ñu fa tolloo moom mooy décider. bu leen neexee organiser élection bu leen neexee a organiser. non or du question neex mais ñoom tey jii retardu élection yi ci opposition bi la dañ waxante dëgg Abdou Khadre yow xam nga loolu bu doon président Macky Sall rek non kon affaire yi jeex na mais ñoom ñoo fi nekk kii di wax lii naan non non monsieur le président nañ def lii nañ def lii mu wut ba dialogue national jël ko jox ko kilifa nag koo xamante ni doomu réew mi la ñëpp respecté ko. n'est-ce pas mu doxalee ko doxalin bu nga xamante nii moo tax gis nga noo nos nos valeurs euh, doyen ak suñuy suñuy papa lañ mais yàlla na leen yàlla gën a may fan opposition ñoo nekkul ci dëgg non mais ñoom ñoom xam nañ loolu ñoom ils le savent très bien xam nga la laa dul accepter Abdou Khadre que l'on parle aux Sénégalais et leur par et ne de leur pas dire la vérité cest di gis nga noom politique la politique est mission très noble nest pas mais tey jii xam nga li ma gis ci ñenn ñi certains opposants ils sont prêts à tout pour même enflammer ce pays. d' accord mais yow mais yow euh, Isma d' accord Isma Diagne. waaw d' accord léegi ñu ñëw ci euh, euh, départ Tëngéej foofu doog a Kelle léegi foofu dafa am ay cadre yu fa nekk ay Ismaïla Madior Fall ñoo nga faak élection locale yi lan nga xalaat foofu est ce que jàppoo ne dina am problème ci mouvance présidentielle bi. bon problème xam nga man je ne mu pas me prononcer sur des mën a am. mais ce qui est sûr et certain mooy que ni tout bon responsable bu nekk Tëngéej ah su président joxe une orientation des directives na nga topp directives yooyu man nee naa la depuis 2009 maa ngi APR n'est-ce pas j'ai toujours suivi les directives yi parti yi ma sa tëral mosuma ci wàccoo ak yoon parce que nit doomi da ngay am discipline de parti. léegi yan leader ñoo nekk foofu euh, ci département bi. non mais leader yi mais il y a tellement. mënuma toog fii di lim ay leader ça non je ne peux ah, mais xam nga tey ce qui est sûr et certain mooy que ni on a une coalition Benno Bokk Yaakaar et la majorité présidentielle boo xamante ne nii vraiment bu dee doolee rek. am ñoom ñoo ko yor. foofu tënk mais est-ce que jàpp leen ne bu élection locale ñëwee euh, euh, pëccëxoo mën na si am. non pëccëxoo mën na cee bañ a am. mais mën naa am ndax xam nga lu tax mën na cee bañ a am. mais mën naa am xam nga lu tax mën na cee bañ am. Hmm. dëgg yàlla xam nga. kalaman xam nga wax ci biti yomb na hmm? mais ku nekk xam nga kalaman. mais Ismaïla Madior Fall dégg na candidat daal waaw mais il est à fait normal qu'il déclare sa candidature c'est il en a le droit c'est un fils de Rufisque nest pas am na droit boobu donc il y de problème mais le plus Ismaïla Madior c'est un légaliste. n'est-ce pas te ku ko xam si xam nga ni lii bu ñu nee lii la yoon bi tëral loolu lay foofu lay jaar. est-ce que il ne sera pas en déphasage avec les directives du président. ça c'est sûr d'accord euh, suñu laaj bu mujj euh, Isma Diagne mooy yéen mouvance présidentielle mhm. ñu bari dañu jàpp ne su ngeen moytuwul man ngeen a ñàkk au niveau national ndax boo demoon tey gox yu baree baree bari. Mhm. dafa am instabilité yi ay euh, ay bataille guerre de leadership boo xamante dafa am. Euh, boo demoon ay parcelles nga dem ay euh, Ziguinchor nga dem Kolda dem foo dem ci Sénégal. je te comprends xam na Abdou Khadre je te comprends très bien xam nga lu tax. gis nga quand une famille grandit. Hmm, ku nekk da am place booy occupé ñun doon xale suñuy mag ñoo nekkoon ci néeg yi néeg yi nest ñoom ba ñu doon mag dem wuti seen kër yi bopp ñu ñu jël seen i néeg njaboot buy màgg rek ah il faut mu am loolu. mbëkkante non mbëkkante wuñu parce que tamit dama lay wax leen na kilifa gi. man mbëkkante laa ko dama la kilifa gi. man maa wax mbëkkante. yow mën nga wax mbëkkante mais le président Macky Sall c'est bien qui est qui dans sa localité xam nga la force de de de de du leadership du président dans la coalition c'est-à-dire mooy nit ñi dañ ko jox respect parce que gis nga la respect ça ne s'impose pas ça s'incarne parce que dafa xam luy cër doomu aadama bu ne mu delloo la ko ku la delloo cër nag da ngay jox cër foo ko jox ko cër. d'accord voilà. jërëjëf euh, Isma Dia ñu lay sant di la gërëm. waaw Abdou Khadre yow aussi dama lay sant di la gërëm vrai véritablement euh, waxtaan bi euh, neex na di sant encore une fois tous les cadres du parti la CCR euh, notre coordonnateur Abdoulaye Diouf di sant waa Tëngéej ndax Tëngéej ñun moom mooy sunu sàkk doo candidat mooy sunu sàkk dama ne man je suis dama gëm les directives du parti tey ji parti bu nee def leen nangam loolu laay def. ok c'est ça parce que nit da ngay am discipline de parti. bu dee parti bi bu ma nee defal nangam man loolu laay def parce que c'est moi qui me suis engagé à être dans un parti. Ah. mënu ma nekk dans un parti nag ba pare di nager ak contre courant aux intérêts du parti. jërëjëf waaw yal na ñu yàlla defal jàmm. Ah. yow aussi yal na la yàlla defal jàmm defal ko seen njaboot ñu ngi jëm ci ay élection di ñaan nag askanu Tëngéej bépp nañu defoon rek nañ ko defaat jël commune yépp ah le président de la république mën a continuer. Euh, euh, gouverner gérer ñu aussi Tëngéej di wax aussi que ni les cadres. dans le département de Rufisque dinañ jouer pleinement leur rôle dans ces locales là incha allahu rabbi di féliciter le coordonnateur départemental des cadres Assane Mansour di ko ñaanal yàlla moom aussi véritablement parce que j'ai été témoin de beaucoup de choses depuis 2013 bi ñu mettre en place la CCR ba léegi vraiment il tient te yàlla na ko yàlla gën a jàppale jàppale ñëpp ñoom Lamine Bara au niveau de la CIA nga xamante ni vraiment c'est c'est c'est c'est de principe yàlla leen yàlla gën a jàppale ñu gën leen taxaw ba ñun ñii aussi ñu am beaucoup de choses yu ñu mën a apporter sunu. jërëjëf euh, Isma Diagne mbokk yi moom la ñu invité woon ci seen émission pencum réew mi Abdou Khadre Seck mu nekkoon ci kàddu gi moom Mamadou Diaw jàll ci wàllu machine bi seen émission pencum réew mi mbokk ñu leen di jox dig daje samedi bi ñu dëgmal incha allah.